Lansana Gagny Sakho dañuy tegagum yenn ci ay vidéo balaa ñuy xuus si mbir mi Lansana Gagny Sakho moo nekk nii moom moo ñëw barki démb mu ne Ousmane Sonko lay toogal c'est normal nag caga bi finalement am na seexam muy beneen caga bi te dinañ leen won lu tax ñu ne leen ay caga lañ ñii Sénégal ñoru leen seen anaconda yi ñoo leen ñor benn caga bi am na seex maximum de cœur rek sama gars yi ku mer sa problème la politique lañuy def comme ñom politique de dénigrement lañuy def ñun duñu dénigrer ñun dañuy génne ay la sénégal Gagné saxo mu ngi ni ki du gor ki ku gëna nek a ci aduna waxuma la ci Afrique ku gëna nek a ci aduna jappal ki ki président mak Sall lu ne la ko defral lu ne lu ne la ko defral def ko muy directeur ONAS jox ko ay milliards pour Sénégal inondation bu mu amati mu jël milliards yeeg xaalis yeeg yooyu di ko jox yenn jigéen ñi di yóbbu ñii Dubaï ñii mu indi fii si France lépp rek di juutal moo tax Sénégal du mës a avancé jamono ju président de la République amee confiance si ñoom pour gars yi mën a liggéey liggéeyuñu di dem di caaxaane noonu la Ousmane Sonko nekkee woon impôt domaine ñu jël ko fii pour mu liggéeyal Sénégal liggéeyul moom it ñu dàq ko mu def mer ngemb est-ce que nit yi incompétent yi nga xam ne wane nañu seeni carrière ba won Sénégal mënuñu yóbbu Sénégal en avant Ousmane Sonko bi ne day bëgg laaj réew mi ëllëg est-ce que war na lëkkaloo gunóor yi mbalit yi ñoo xam ne sénégalais yi suur nañ leen moo tax Ousmane Sonko fu mu toll nii mu ngi noonu quoi wax ci Ousmane Sonko sax bu yàggee ñun def ñuy soof quoi comme kii mooy Ousmane Sonko borom bëñi bon yi moy lu bëgg lu noy gis ngeen sonko ngor Je sonko ngi ya sonko ngi borom <laughs> borom juutali légui morom je t'embrasse très fort je t'embrasse très fort. xam nga ni vidéo bi yónnee wu ko jabaram parce que bu doon jabaram la ko doon yónnee gars yi duñ ko jot si internet bi te vidéo bi fu mu toll nii mu ngi def tour toile bi. Lansana Gagny Sakho nekk biir bureau am war liggéeyal Sénégal toog foofu di wax ay jigéen kaay ñu ndekki je t'embrasse très fort lii gàcce la lii défaite la lii moo tax sunu Sénégal mënul avancer. ñoom daal bu ñu leen joxee bureau yi au ñu liggéeyal sénégalais yi ñu ngi foofu di xalaat nu ñuy juutalee xale yu jigéen ñi ñu ngi xalaat nu ñuy yóbbee xale jigéen ñi si auberge yi xalaat nu ñuy yóbbee xale yu jigéen ñi si hôtel yi moo tax heureusement ba président Macky Sall xam ne ñii ñu gat mu dàq leen ci biti léegi mbalit yooyu la Ousmane Sonko bëgg recruter ne dañuy ànd ak ñoom pour liggéey Sénégal ñii ñu liggéeyal Sénégal xool leen ko fii kañu ndékki loolu kaay ñu ndekki yow rek lay xaar je t'embrasse très fort allez chérie te am na soxna am ay doom kan la doon embrasser du soxnaam de du soxnaam dañuy ñëw si beneen vidéo vidéo yi des na nag am na yu gën a garaaw yoo xam ne taatu nee ni mballu bi quoi maanaam mballu bi <laughs> yooyu moom xam naa fin bi laa koy wone nga xam ne Facebook bi dagg live bi tamit amul problème mais xool leen bii tamit Comment vas-tu, chérie chez moi, tranquille, euh, J'espère que tu es rentré. Allez, je te fais un gros bisou, merci. Chérie, j'espère que tu es bien arrivé. Allez, je te fais bisous. ba rencontre ak chérie ba yu def ak pasti tu es bien rentré jabaram parce que bu doon jabar di vidéo yi vidéo yi sur le mais ay gel yéen yéen a jom yéen lañuy xaar tay ngeen naan da ngeen di ak Ousmane Sonko pour liguey un Sénégal meilleur yéen a jom subhanallah xool leen jël Comment vas-tu, chérie? Je suis assis chez moi tranquille là. Euh, j'espère que tu es bien rentré. J'espère que tu es bien rentré. J'espère que tu es bien rentré. Cela veut dire que tu étais avec chérie quelque part tu l'as déposé ou bien tu l'as donné de taxi tu lui demandes est-ce qu'elle est bien rentrée du bien rentrée kay bon ko juutalee ba def say pastèque bay def say menthe yéen a ñàkk jom moo Ousmane Sonko ku bon rek mo meuna a ak mom ay mbalit ñi la xaar ñu naan dañuy ñëw pour un Sénégal meilleur Ñom Ousmane Sonko ñom Guy Mari Sagna ay Assane Diouf ay Clédor Sen, ay Mbam yu tekkiwul dara bir Sénégal ñone dañuy laaj un Sénégal futur pour nañ leen ko jox 2024 subhanallah yàlla nañ si yàlla musal ñu jël 2024 naan dañuy jël réew mi di ko jox ay Ousmane Sonko jamais au plus grand jamais gis nga nitu Sonko yi ñu ngi naan c'est leur vie privée bu doon nitu Macky Sall yi de ngeen partagé ko ba tës Pape Alé Niang wax si ba Guy Marius Sagna ëmbalee ngeen ne c'est son vie privée ba Ousmane Sonko juutalee ngeen naan na Ousmane Sonko juutal cent mais bu doon benn ministre Macky Sall rek ngeen gis mu biisu benn jigéen ngeen commencé wili pande takk rajo yi takk internet bi may leen ñu jàmm ngeen naan c'est vie privée vie privée bu ñëwatee si toile bi nekkatul vie privée est-ce que ni ngi dégg fii du ngeen fi am jàmm du ngeen fi am salaam te Lansana Gagny Sakho boobu kat Ousmane Sonko bi taxaw tey non moo tax Ousmane Sonko du rus Ousmane Sonko du nit ku gën a bon ci Afrique ci àdduna mooy usman Sonko parce que science leen jamonoy mbënd bi Ousmane Sonko dafa ubbi gàttam mu ne Lansana Gagny Sakho doo dara tekki woo franc ñu jox la presque sept cent milliards nga luubal ko mu xas ko léegi Ousmane Sonko tey président Macky Sall dàq na Lansana Gagny Sakho boobu ndax incompétence am Ousmane Sonko dafa bëgg dem liggéey ak Lansana Gagny pour naan dañuy jël Sénégal il est incompétent pour doy pour Sénégal il a déjà montré ses limites ñu déglu Ousmane Sonko ak sax ñu déglu Nous avons examiné le document de l'ONAS. Nous avons examiné le programme du projet qui sont les deux plus grands. Je peux vous dire qu'au moment où on parle, ils n'ont même pas injecté 200 milliards. Et ce qui est effectivement mobilisé, qui figure dans le document de l'ONA, c'est 48 milliards sur 750 milliards ou 767 milliards. Deux questions se posent à partir de ce moment. Ce qui a été fait, ça a été fait dans quelles conditions Où est-ce que l'argent est passé Parce que les Sénégalais, ils ont fan la 750 milliards ah. il faut que nous ni 750 milliards monsieur Sonko dit milliards. maximum 40. Je le mets au défi. Je le mets au défi de venir à l'ONAS lundi. Je lui montre pièce par pièce l'ensemble des montants qui ont été dépassés. Uniquement à l'ONAS, nous sommes à 80 milliards. Je le mets au défi. il faut parfois, quand un pays est dans des tourmentes de ce genre, qu'on laisse tomber la politique et qu'on soit objectif. L'information, il faut aller la chercher où elle est, la trouver avant de parler aux populations je le mets au défi, je dis bien, je le mets au défi, de venir à l'ONAS lundi matin, avec qui il veut, je lui montre dans les détails, 80 milliards dépensés, et on va aller voir site par site. Il faut parfois qu'on sorte de la politique et qu'on essaie d'arrêter de tromper les populations. coup je ne suis pas d'accord avec lui sur le point du franc CFA. gis contre valeur économique rek là. L'un des principes fondamentaux chez nous, c'est jamais de coalition. Si on devait retomber dans les mêmes travers que nous dénonçons, si on devait revenir, euh, nous allier avec ceux qui sont même à la base de notre engagement politique, mais finalement, ce sera du temps perdu et peut-être même on aura été pire que ces gens-là. lii de mooy xanaa non comment Ousmane Sonko mu ne duñu pas a defa coalition ak gens yi ñuy ñuy parce que Ousmane Sonko fii dafa xas Lansana Gagny ça a leen ay Il a ñu jox la sept cent et quelques milliards pour leen doxal Dakar Ousmane Sonko yagul c'est un an si ginnaaw Lansa Gànni Saaxu génn xas Ousmane Sonko ne ko da ngay duul Ousmane Sonko àndal ak ku la neex nga ñëw ONAS ma wan la preuve par preuve que fenkat nga léegi ñaar ñoo ñoo bëgg ñëw naan dañuy def coalition pour xeex président Macky Sall ñii du ñu rus ñii amuñu gàcce seen gàcce seen biir sili bi la nekk Ousmane Sonko ko ay Lansana Gagny Sakho parce que sénégalais faw nga am loo rus parce que ñu toog un an si ginnaaw Ousmane Sonko xas Lansana Gagny Sakho devant tout le monde mu ne ko Lansana Gagny Sakho sàcc nga 700 milliards la le président Macky Sall la jox ana cent milliards yi foo ko dugal ab sàcc nga mu xas ko ba mu ràpp Lansana génn la lendemain ne ko Ousmane Sonko yow ab duulkat nga ab fenkat nga man cent milliards yi ñu ma jox dugal naa ko fii dugal naa ko fee boo weddee àndal ku la neex nga ñëw mën a la bii fii la dugg bii fii la jaar ba mujj bi sax mom invité Sonko mujj lañ Sonko bu ko dalal parce que ab la ONAS machine ONAS ay jaar fofu vous tay ji ñoo ëlbeutiku naan dañuy ñëw pour def coalition pour pour vous dire tous les moyens sont bons pour Ousmane Sonko créer un groupe de nit. yow da nga da nga yaqulé da nga ngi fii nga ne woon doo ànd ak bi képp ku ànd ak système bi dañ la war a faat mu si commencé si ab Ablaye wadd ba ci sengoor ba si Abdou juuf ñoom ñëpp ku leen faatoon day dagan Ousmane Sonko yaa wax loolu sénégalais di dégg tey yaa ngi noonu lëkkalook ñoom Aïda Mbodj ñoo yaayu système bi parce que ay ministre la ñoon ci nguuru Wade yaa ngi lëkkalook ñoom Barthélemy Dias socialiste yi depuis Senghor ba léegi ñoo ñu jiite yaa ñàkk jom tey yaa ngi nii di dem bureau Gànni Saaxo pour naan da ngeen di def coalition Gànni Saaxo boo defee moom coalition defet la ci yow Ousmane Sonko nit da ngay am loo rus Gànni Saaxo président Macky Sall daf ko football ci parce que il est incompétent te fan ngeen di xamee Gànni Saaxo il est incompétent dañuy déglu rek président jox ko ay milliards pour mu liggéey Dakar ak Touba mu ñëw di def ay chantier biir Touba joxul sax cër kilifa tuubaay yi munu leen wax ba léegi liggéey bi nii la ak nee la ak neela moo président Macky Sall xol ba xol xamné na ki du nit bu tekki dara mu dàq ko ci biti légui nak momi dafa def mer ngomb et puis fi la togone di défendre ay bilan président Macky Sall Gane sax ñu déglu ko. mais ben, on est tous dans le mouvement politique. être dans le mouvement politique c'est s'impliquer dans la marche de la société. à ah, c'est différent je pense que ce pays est arrivé. dans un moment important où personne ne doit plus se taire plus se taire, c'est que nous devons nous assurer que la continuité de la gestion de ce pays sera entre les mains de personnes responsables, compétentes, dans personnes responsables. le président de la République, son excellence, M. Macky Sall. C'est pour ça que nous sommes descendus sur le terrain et je pense que les choses qui ont été faites dans ce pays méritent largement que nous nous impliquions tous, tous. On ne peut plus se taire parce que ce pays est dans la croisée des chemins et c'est ça qui implique qu'on descend un peu plus. Vous avez parlé tout à l'heure des mouvements qui se créent le mouvement se créent parce que toutes les populations ne se retrouvent pas dans les partis politiques. Et l'objectif, c'est d'élire le président de la République sur Dakar. Je parle bien de Dakar. À 60% minimum, Dakar n'appartient à personne. Nous avons fait un travail excellent. Le président a fait un bilan excellent. Il est sur une trajectoire qui va amener le Sénégal vers l'émergence, vers le développement. Et ce discours, nous devons le tenir. Nous devons aller dans tous les foyers et le partager avec les populations et leur expliquer la quintessence de ces réalisations-là. Qu'est-ce qui va se passer si on se tait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 Et demain, nous allons accélérer. Nous allons envoyer sur le terrain ce que nous appelons des messagers d'Adas dans l'ensemble des des, des, s'il vous plaît, Expliquer aux populations les réalisations de son excellence président Macky qui justifie nettement un second mandat au premier tour sur Dakar. On vous a entendu parler de 60%, est-ce possible si je me mets à me demander est-ce que c'est possible ou pas, quelle est la raison pour que je sois ici, nous devons aller, nous avons les capacités d'aller au-delà de 60% parce que nos réalisations le prouvent. Ce qui a été fait dans ce pays sur ces sept dernières années n'a jamais, mais jamais, jamais été fait. Pour y arriver, par contre, ce que nous devons faire, c'est ce travail d'explication, descendre sur le terrain, nous sacrifier. Il ça dépasse largement la réaction de son excellence président Macky Sall c'est l'avenir de ce pays dont il s'agit. Vous avez des gens qui n'ont jamais, je dis bien, jamais travaillé de leur vie, qui disent qu'ils vont réclamer le pays. Sont en colère. Si on a dit qu'ils ont travaillé dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait Assis derrière un bureau, passer leur temps à fiscaliser les entreprises. Vous allez confier ce pays à ces gens-là jamais rien fait de leur vie. Non, non. Et... ubbi leen ay nopp s'il vous plaît ngeen dégg Sonko lay wax fii nee na Sonko ay nit yi dara ci Sénégal xana du ñooñu lañuy naan lañuy dénk Sénégal ñoo xam ne defuñu dara sax seen biir ville mu Ziguinchor ak Casamance bee ñu dëkk non non non.